bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wax leen ñun ay jullit leen yàlla mooy sunu boroom lislaam mooy sunu diine alquran mooy sunu téere jullit yi nooy bokk mbokk দেশ des na নেও ñu àgg ci tànnaat ay député yóbbu leen assemblée nationale mbooloo mii am na ay député yu ànd ak yéen ci liggéey bi ànd ak nun doole ngi fi buñ ko bàyyi mu nelaw jóg leen ngeen fexe ba am carte électeur am carte d'identité jot ci liste yi génn nu sol ca bam fees dell dell dell suñuy député bu yaay yekkee añ nga ñëw tiim añ bi naan laar bi laaran doo añ bu sa yekkee añ nga ñuy tiim añ bi naan laar bi laaran doo añ in tansurullaha yansurkum in tansurullaha yansurkum sunu borom nee na dimbale leen ma ci penc mi ma dimbale leen ci penc mi penc mi jag dimbale leen ma ci penc mi ma ci mi jag am nañu la xasaay nekk ay député ànd ak ñun ci liggéey bi lu leen jaral jaral leen ko na liste yi génn na carte yi génn nun kat fi ne ku fi falu noo fal ku folli ku noo folli nan jàng fal folli nan jàng fal ak إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مكي ليون دمي في نوكا دفنا وني في نقول يالنا يين واخنا باخنا waye jëf mom bu ñëwé man na yëkëti wax tek fële wala boog mu ànd ci gëna wax ñu ñu bokk jëf yàlla nu nu bokku jef yalla nu yalla boole nangul man nag léeg-léeg su ma taxawee fii may jeexal sama xel day ñëw ci aaya yi inna allazina kafaru yunfiquuna amwaalum fi sabili li sudaan sabilillah fa sa yunfiquunaha suma takunu alayhim su ma yuxlaquun li muy tekki mooy nun ñii kenn du ñëw di ñu jox ñuy def lii nun nooy làmb suñu poos def ko làmb leen seen poos def ci liggéey bi waaye bu leen ca yem wuti leen carte électeur carte wate bu jotee balaa yàgg élection législative yi ñëw ah ah ah